Good afternoon, um, listeners. This is Upright Media TV 2, and we are here today at um, London Corner, Marsengelo. Um, today, the 14th of May 2022, is a day that the IEC is conducting by elections for councillors. Um, and um, right now, we are here in um, London Corner polling station, uh, Marsengelo. we have five polling booths here today, and then we to talking to the presiding officers and some voters if possible. Upright Media TV 2 um, kon nu ma ko waxee rek tey um, Upright Media mu ngi génn ndaxte tey la um, councils by election yi fii si London Corner Walk ak Bundung Six Johnson Ward uh, Marakisa Ward ak Sanyang Ward uh, ma ñëw fii nag uh, London Corner fii nii ma tase benn veteran politician oncle na nga def. maa ngi Milo Savage. ok oncle um, uh, Milo yow nag yàgg nga si politique um, um, gis nga ne tey mooy uh, ba election bi fii si Lononkona ward fii uh, yéen da ngeen nekkoon si campagne bi xam naa ne yéen a ngi si campagne bi woon how was the campaign and if there is any challenges yoo leen faceoon si campagne bi yan lan ban challenges la woon. waaw campagne bi parti yëpp ñu ngi doon campagne mel ni UDP am na fi candidate PDOIS am na fi candidate NPP. coalition am nañ fi candidate ak indépendant yi ah, ñun man ci suma wàll la ah, di nga gis ne demuma woon si ground bi pour campagne waaye suma nit ñi nga xam ne ñoom suma supporters lañ ah, daanaka waxtaan naa ñoom pour won leen fan nañoo war a sànni parce que loolu dafa am solo parce que soo nekkee ci gox te nga am voters card sakatuma laa nga am ay nit war nga leen a won pour ñu xam naka lañ war a def foog ñu vote te su ñëw vote foog ñu votal kenn loolu lu am solo la waaye nag ci ground bi am na difficultés yu bëri yoo xam ne. yu mel ah comme démb ci guddi. dañ doxantu woon normally loolu aada la ci politique. dañ doxantu woon ci. house na. waaw dañ demoon seeti honorable Ousseynou Diaité suñu ex euh, honorable la. mu ngi dëkk Bambou. daanaka stakeholder la. su mel ni amee dina dee bëggal ndaw ñi. ñu toog naan ataaya comme aada ndaw yëpp naan ataaya pour suba ñu war a dem sànni ji ñun fa lañ demoon biñ fa jogee ñu war a ñëw ci place bi fii nga xam ne Omar Gomez moo fi nekk yut lii la la pour ñu ñëw am ko restaurant la am fi mbuuru waaye bi ñëwee ba si boori ex leet si di Diop soo mu am ñoo xam ne dañu attaque démb ci guddi démb ci guddi waaw ñooñu bi ñu attaque duñ mun a wax ne political party moo leen yónni waaye politicien lañ te xamee naa leen because ku ñoo wax euh, Cheikh Omar Sakho mu ngi ci. waaw ah, Cheikh Omar Sakho Sakho boobu noonu si bam politique la bokk ban political la bokk. Cheikh Omar Sakho. maa ngi ko xamee ci NPP. parce que mooy seen chairman fii ci London Corner. waa euh, Pierre Minti. boo mokkoon na ci Aji Gueye. de am euh, sori. Aji Gueye nekku ci. Seynabou Manka moo ci nekk ak Soxna Diop. ak ñetti boys so am na kenn ki sax daf doon impersonate di ma wane ne moom SAS la woon laaj ma ne ma Ria Milou Savage ma ne ko waaw mu ne ma tey dañ laa éliminer fan ngaa dem nii ci guddi gi waruloo dugg ci kër yi ma ne ko man dama amee suma right ka wan naa ko ne section 25 of the constitution right to movement dama ko am te yéen di ngeen def nii sax yow yaa ngi impersonate ba pare suma lii robbing with violence sax bi ko yéen a rakki alkaali bi si boppam moom lañ ee ci guddi gi moo jóg këram lañ toog ba six o'clock ndax foog nga ne loolu baax na ci politique. mu ngi mel ni yéen di bu ñu leen traité ah, da ngeen dellu si kër yi alkaali bi nekk fa ba six pour ngeen mun six ci suba ñu ngi fa toog te ñii duñ leen bàyyi because na leen yóbbu ci luwa def nañ ko nag ci media house yu bëri dinañ jàkkaaroo ñoom ci luwa mu ngi mel ni yow yaa ngi accuse NPP of threatening your campaign team. yes of course because I saw the chairman on board gis naa chairman bi ci boppam daf ci bokka so Mawla won the whole entourage is NPP why lu tax te maa ngi àndoon na ku ñëw waay Yankuba Kamara ok yow among all these candidates yi ñu nga xam ne dañoo taxaw fii si London Corner Ward ah, ban candidate ah, nga endorse yow man pour man man ci candidate yi doon taxaw yëpp dama doon toog pour jël suma choice seet ku ma saanil. Ah, yaa ngi taxaw di jël sa choice. koy saanil waaye yaa ngi doon campagne am na ko doon campagne ñal. déedéet maa ngi ñëw man dew xaw ma dew ma ci grand bi pour waaye am naa ku nekk suma xol ak suma nit ñi waaye lii problème bi mooy su fekkee ne ñii ñu ma attaque obviously du ma leen saanil damaa saanil. non Milo soo gisee ne mais bi ñun laa attaque you are not campaigning fo them. yaa am na candidate boo doon campagne al maybe that's the reason why ñu gis na Milo is undermining us that's why ñu attaque la loolu moom is clear to them. waaye foog naa ne suma fundamental human right. waaw lu tax you are not bold enough to tell us your candidate. ma dinaa la wax ma ne. suma fundamental human right. as Milo. ah foog ma ne su ma jógee sax am candidate di candidate di dem di campagne damaa threaten suma opponent. non loolu is not right. it's my right. understand nga. so ñoom suñu xamoon ki ma campagnal. duñ ma man dama jógee ci palaas di dem ci palaas. ñu ma lii affaire gi dañ ma ko gisee. gisewuma ko politique bi ko bi ñëwee wonuñ ma ne parti lañ jógee. waaye xamee naa leen ne politicien lañ. ñuy ma antagonise foofu. ne dañ maa éliminer it's very wrong. lii mooy affaire bi. ak fu munti doon. li maa wax ni nit ñi di ma fees nit ñi. xam nañ ban parti laa nekk am nañu ko xam am nañu ko xamul waaw léegi mu dama bëgg mu leer fii dama bëgg mu leer Upride Media TV 2 mu leer fii ne yow ban ah, ban candidate nga nekk di campagne ak kan nga nekk di support suma choice ki ma bëggoon pour sànnil mooy ñoom seen candidate bi ko wan nañ ma ne ma ñoo ngi support xaw ma aji géey loolu lañ ma wax waaye biñ ma defee lii dama ceeñ maa ngi pare see sànni dinaa seet ci ñeneen ñi ma sànnil kenn so mu ngi mel ni eh, yow nga ne Adji nga bëggoon a sànnil waaye nag bokkuloo woon si campagne team yi bi lu tax because nit ki soo ko buggee ba ba nga bëgg kooku noonu pare nga pare nga pour defal ko lu nekk soo you were not are you are you were not campaigning for Adji man ame a member of the coalition man maay di secrétaire général of the APRC. waaw su nekkee yow am member of the coalition. yow si campagne ci mi Adji bi nga waroon a nekk. maa ngee ñëw. gars ni ñu affaire bi. jaaruñ ci yoon. because su fekkee ne ñu ngi taxawal candidate ci constituency bi wax naa ko authorities yi ñoom ñëpp wax naa leen ki parti bi nga xam ne moo taxawal mënoo APRC mënoon naa taxawal wala NPP waaye kii nga xam ne moo taxawal candidate day waroon a ñëw ci suñ constituency executive ñu approach ñu ñu indi candidate bi su ko defee ñu xam ko ñu mun koo campagnal waaye dañ ñu bypass suñ ñu bypassé duñ join ci campagne ethics la. loolu moo waral lii yëpp moo man ak suma maaxaa ci politique ak li it should be chain of command. correct ANCAR secretary general 22 years maa ngi fi falu naa fi council ba pare nekk secretary general of a party ñu nekk coalition ngeen sampa candidate di other party jaaru ci suñ ci suñ comité duñ jóg mun nañoo sànni sax candidate bi waaye duñ campagne ba pare joxe nañ 500000 dalasi ci national assembly joxe nañ bii tam xaalis over 200000. soo yow sa coalition partner bi war nga koo jox mu campagne yi yow yaa ngi téye xaalis ba pare ñun ñu jóg on board pour campagne physically duñ ko def dañ am right duñ ko def. so ok Milo ben tey waxanguloo yow kan nga nekk di support. waaw yow nga ne Ajigey nga daan support. ma ne Ajigey hmm. moom laa bëggoon pour sànni personnel yi. because du ma campagne waaye dama doon pare. waaw fu mu nekk change nga sa mind. change naa biñ ma attaqué. démb ci guddi ba tey. su ma nit ñi yëpp naa leen change ma sànnil beneen candidate ok ok jërëjëf oncle Milo um, kooku mooy um, Milo Savage mi nga xamante ne veteran politician fii si London Corner um, jërëjëf incha allah parlementaire parlementaire bi Moussa Thiam laa campagnel te moom la saanil hmm. képp koo xam ne mu ngi nekkoon suma gannaaw Moussa Thiam la saanil waaw yow naka ngay saanilee Moussa Thiam because yow xam nga ne NPP taxawaloon uh, uh, candidate fii te yow nga bokk si coalition bi waaye mag laa woon ne la coalition bi jaaruñ yoon liñ ko defee jaarul yoon jaarul due process te ñun in our capacity so jallu du process dañ la fa bàyyi waaw because ñi ci top bi grassroot bi ñoo dee liggéey ci top bi ñom ñoy gëna enjoy place because ñu ngi do di enjoy ay ministère day wa day wara respect ci grassroot bi su fekkee ne génne nañ ñu melni 500000 ñu ne coalition be wara campagne ñaari parti ku nekk am nga ci yaman am nga committee dañ wara sédo seedoo bi yow da mbiri xaalis bi daal mo soxal na la trop du mbiri xaalis bi duñu waré ñoo pour campagne comité bi dafa war a am lu campagne goes with funds doo campagne ci gannaaw xaalis ñoom bu ñu jëlee xaalis bi yëpp campagne seen own comité ñun amuñ duñ campagne yi duñ dem. ok loolu am na solo.